jarbaat ba moo jébbalu ji woon dem tuubey ndayam di jooy mu naa ko tuubi ruubi Cheikh Babacar Thiergane Njaay Sëriñ Mamar Baana Mbay Cheikh Aline Diouf la baay jire ko daane keroog fo bincum la baay jarbaat ba moo jébbalu ji woon